lu nekk ngir mu dakkal grève de faim bi waaye Ousmane Sonko déglu den li mu fas yéene moo di dem ca grève de faim ba ba mu fin li mu ci jublu sur soine nañu mooy ñaawlu ak jéebaane teg loxo gi ñu ko teg loxo cib évacuation ci hôpital principal fa la mujj am na sax yenn ci awakaam yu jot a gisee ak moom du moom rek moo nekk cib grève de faim ba mu sonal ko ndax Pape Alé Niang moom it yéenekaay bi mi ngi ñuy xibaar ne ma nga cëb xiifal moom Pape Alé Niang ak Ousmane Sonko ay biteel lañu leen mujj sampal ngir ñu am tuuti kàttan Vox Populi nañu grève de faim bi mi ngi def ay loraangi yi dul jeex ci Ousmane Sonko ak compagnie ndax tax na ba Sonko teere ji hôpital principal Cheikh Bara dem réanimation Pape Alé mujje urgence Hannibal Djim moom it dafa crise ba ñu yóbbu woon ko infirmerie lëkkati nañu Ousmane Sonko donte def na malise ba ñu évacué ko principal terewul grève bi moom nañu ca tey ndax keroog samedi rek moom Ousmane Sonko ndékki na ba kël maître Branco di xowaan mi ñu jàpp keroog samedi ca gànnaar anki dina kay xëy nañu ko ndil ci xëtamu njëkk ci juróom-benni fan ci la ko gaañi wër ba jàpp ko enquêteurs yi ci seeni laaj dañu ko wax mu ne ab espagnol la du français jot na sax gise ak consul Espagne bi ci Sénégal bés bi la jour di ñu fàttali ne moom avocat bi di Juan Branco ca Rosso Mauritanie fa la ñu ko jàppe mu jëloon gaali loo ci bëggoon a génn réew mi ñu gàddu ko indi Ndakaaru yóbbu ci rëbës ba mu fa duggee ba léegi nag nanguwut a lekk aw ñam dugg ci gémmiñam nanguwul it ñu indil ko avocat bu koy jàppale meerub Sangalkam it bés bi la jour nee nañu mi ngi ciy ñoññol ak yoon ndax dañu koy tudd ci mbirum Juan Branco Soleil national nañu procureur bi gën naa tëral dossier bu Juan Branco libération nañu beneen procédure bi ngir moom Juan Branco waa Mauritanie ñoo ko jàpp jébbal ko waa DIC ñu ànd ak waa BIP indi ko Dakar yóbbu ko ca kaso bu rëbës keroog samedi lañu ko fa dugal ay boori deux matin ba ko enquêteurs yi fàttalee mandat d'arrêt bi ñu gàll ci ndoddam ba tegal ko ci li ñu koy toppee libération nee nañu li leen Juan Branco tontu mooy seule la lutte libère ba mu waxee loolee ba noppi nag tegaatu ca leneen leneen li ci yam libération nee nañu mooy maître ci réew mi ak fa mu jaar ba génn muy Banjul di Kër Njaayloo lagros Rose quai de ba ca Tëngéej ba Mauritanie ñi ko jàppale ba mu dugg Sénégal l'Observateur ne nañoo ñoo nga ciy tudd benn Taleb Sow bu FRAPP France Dégage ak maire bu Sangalkam di Alpha Bokar Xuma ñu gën koo xam ci Pape Sow Juan Branco ak i mbiram ñi ko journal ko Échos gise mooy patas bu tàng jiir bu nekk ci loxo état bu Sénégal bâtonnier bu Paris ak syndicat gi jaboote avocat yi ci Sénégal ñoo ngi sàkku ñu libéré ko féexal ko ñi féex jamono ji ñooy Karim Meïssa Wade ak Khalifa Ababacar Sall Sud Quotidien xëy di ñu xamal ne yoon yoon wi tax ñoom ñaar ñooñee mën a am sañ-sañu faadul dara ci réew mi yoon woowee xàllal nañu leen ko keroog ci assemblée nationale député yi woote nañu modification yi ñu indi ci code électoral bi soleil national le mandat ak journal l'info ñoom ñëpp xëy di ñu wax ci seen xët yu njëkk ne kii di Karim Wade ak Khalifa Ababacar Sall léegi mën nañoo fàllu mën nañoo fale Faye Mansour moo xëy amee xët mu njëkk l'observateur moom maire bu Saint-Louis bi doon it ministre transport terrestre ma nga fay def la ma nga fa ba tey moom Mansour Faye ndax candidat la bi Benno Bokk Yaakaar nee nañu waxagu ci li leer keroog daal ci ndaje mi président Macky Sall woote woon ca palais de la république ngir ñu seet ana kan la ñuy jiital ci biir Benno Bokk Yaakaar moom Mansour Faye nee woon na fa candidat la président ne ko na ko retiré waaye waxul ndax da koy retiré am déet li ko naqari tribune nee nañu bokk na ci li ñuy dendalee candidature bi ak njabootu Macky Sall gi ba bëgg koo tuddee candidat de la belle famille ba tax am ñu ci bëgg a jaare ngir di ko song ñu songaat l'observateur xooli fa mbiri Ali Kouyaté